Faye Babacar ci loolu sant yàlla rek. tey ñëw nga Fass Medina Gueule Tapée Colobane ak asalam ak Medina. ak parcelle lu xew. ah waaw Modou moo xewlee Gris 2 moo xewlee tey open press am ñu war a ñëw rek pour soutenir ko ñun ñëpp quoi. nga ànd ak Gris ñëw mu mel ni kon seen rakk daal moo leen yëkkati tey. waaw ñun ñëpp koo fi gis tey fii rek ci biir ci biir yëpp moo la tax a jug tey quoi moo la yëkkati. Reug Reug dem dama koo laaj Fass ak Pikine ak ak euh, Thiaroye mu ne masta yomb ci yéen te day continuer di métti ci yéen. waaw ah, mais bu dee loolu la moom côté bu ñu jafee moom ñu luñ fekkee côté fële lay jafee man li ma fekkee boog waaw ah, man li ma fekkee waaw. fàttali ko na fàttali na ma fu ñu dóoree Mbaye mu daanu de papaam nee na. mais Mbaye Gueye aussi daan na ko papa kan est-ce que bëriwul trois fois xaw ma fois. ah kon Mbaye daan na papa kan. que ah, daan ko deux fois wala trois fois ci ma dégg. yow koo daan caaro. ah a bëri ko daan. daan safurlaa. Gris Bordeaux daan na fa Xaarim Ndiaye daan na fa Baye Mandione kum fa daan ak Tafa Gueye daan na fa Xaarim Ndiaye aussi Zallo daan na fa Xaarim Ndiaye deux fois Xaarim Ndiaye daan ko benn yoon su ma jumulee kon daal wëg rëg-rëg waxam jooj da nga koy dàq su ma la dégg ah mais dañ koy dàq moom la fa woon rek incha allah dimanche nag nee day gaaw de samedi samedi nee na day gaaw moom ñun na gaaw mu yéex yëp mooy na ko boobi teg si yoon rek yàlla may kon dam loolu ñu koy wax quoi booy bi am na loo koy moytuloo waaw waaw loo loo ci mën a ñamal. waaw bu bés ba rek samedi soreetul ñaari fan si des jeudi vendredi samedi waaw waaw. waaw si yow. bu mag ma mun a maas ñooñu la ba léegi ba tey jii seen sëriñ ñooñu tëggal te ñun ñoom ñoo màggandoog ñoom defandoog moo tax famille famille ñoom bu ñuy tëggal bu ñuy tëggal waa baas yéen a ak xol xam nga lépp loo rek xol nga la defee te ñoom. yàlla na yàlla mal cat. lépp loo xam ne léegi damay ñëw si combat sa rakk day bëre mbër moo xam ne dañ ne mbër mi moo dàq bëre moo gën a mokk bëre te moom nee na combat bi du yàgg yow lool yaa ngi koy dégg dàq bëre boobu ñu ne Reug moo ko dàq def. waaw loolu moom yënguñ ci moom baax baax ba moom macha allah mu mës a moom dañ naan di woo ko dàq bëre na ko gars yi di dàq bëre rek mu leen di daan rek. combat bi xalaat nga moom mën na daan Reug Reug ci ma la dama képp ko mu bëri nag waaye koo xam ne li muy daan yëpp benn wax ngay wax ñoo ko dàq bëri mu leen daan yàlla na yàlla yàlla mbër mbër bu mu des rek ñu ne ko moo la dàq bëri moo ko dàq bëri mu daan la. tey ma gis Papa Sow ñëw nga ñëw maanaam faas yëpp génn xale bi maanaam lan ban ban cër la leen jox wala lu mu liggéey ba tax yéen ñëpp ngeen génn tey. waaw. Mor. Gris 2 il est sincère. dafa nekk di ko sincère ah. di ko entier. ci mën a sonal nit. mën a jël. ndongo daara la nag du tricher. wax dëgg yàlla mën mën mën sonn ci doomu aadama. képp koo gis waaye ay itam ñëw rek. bëccëgal na la guddal na la loo xam ne tey mënoo ko ko fay waaw a ci man mii waaw am ci man li li mu mën ci man moom rek koo mën ci man te équipe pas la nekk mais li mu mën ci bésu jàmbur bésu xaritam mënu ko ci ci bésam Reug Reug dana Fass ak Thiaroye mosul neex ci yéen diggante Fass ak Thiaroye ah diggante neex ci yéen loolu waxu Reug Reug la démb waaw waxam la waxu mbër rek. waaw léegi loolu loo ciy wax. loolu du ma ci wax dara damay ñaanal yàlla suma rek Modou Njeri 2 yàlla may ko dal ak fekkee ak jàmm ak sarax ak féex ba koy ñaanal ay mbokam Njeri 2 ak bépp bépp andi jàmm bépp xaritam ñëpp nekk ci jàmm ba samedi incha allah rek Modou Njeri 2 daan ko jëlee bu set wépp baalu benn benn. yow foo ci loo maa ngi nii nekk sama ruq rek. ana Ama Baldé. maa ngi ci ah Ama ma ne ko laaj. ana Bombardier. ñu fi en tout cas ñu fi. ana Balla Gaye. yow sax fi. yow si am nga borom. adversaire la da ma ñëwoon rek. man maa la dàq bëre. dama ne la. maa la dàq bëre. yaa ma dàq yaa ma dàq teewoo bi. maa la dàq bëre. yaa bëre ma lay daan. jox naa barki Seydina Mohamed bilaay awal bi looy yëg looy yëg waaye mais li ji looy lamb ji mooy lamb ji ay sa rek ñi ñoo ñi ñooy bañ njëwal Dakar ñi ñooy sëtu Mbaye Daawur ñi sëtu Daawur Faye ñooy sëtu Wëy Seen ñii seen diggante seen diggante ñoom en face. lu tax. ah. waaw xoolal sa waay. waaye lii lan la. déggal boobu galan. jinne feeñul faas nga yaakaar. Ah, que jinne feeñu fi. waaw jinne ji feeñ na faas. maa ah, du jinne jee ñëw. ca faas suñu commune ba de. Ah, na waar de. <laughs> eh jinne ji. taala mbaa du jinne jee feeñ faas. nee naa la setul na waar de. setul ak cey faas. convoi la ñu def du ñëw ci xanaa maa ngi koy door a gis tey la ñu def yaat ma ko dem na ca ñoom cey bi combat mais ñu ngi lay fay bu baax baax a baax. tey ñuy boo ñëwee fi Fass diggante ak Medina mu mel ni ñaari dëkk yi wala sax supporteru Fass daal dafa mel ni tey luy naat lu xew ak lan ngeen def. waaw mais euh, waa Fass moom xam nga faas goxu làmb la dañu bëgg làmb donc lii du fi gan lu fi yàgg la lu fi ñu fi fekk la ñun ñii nga xam ne tey ñoo jiite écurie bi jaaroon nañ ci bokk ci xale yi di di di di fekkee lii donc euh, lii lu yàgg Fass la et Maodo nekk xale bu nga xam ne que écurie Fass daf ko yaakaar làmb yaakaar ko donc su amee bés nii rek lay mun a mel waa Fass yëpp génn waa Medina génn pour que ñu gunge ko vers vers vers vers ndamam ah waaw. parce que dañuy dégg ci ay nit ñu ne est-ce que du moom mooy kenn na la remplacer mag ñi Fass da ngeen di confirmer loolu wala déet. waaw non ñu war a remplacer euh, Gris Bordeaux ëpp nañu ëpp nañu set Maodo ci la bokk daf ci bokk du moom kenn Tafa Junior ci la bokk Forza ci la bokk. Serigne Ndiaye ci la bokk Explosé ci la bokk dañu bari Boga ci la bokk Lac Rose ci la bokk donc Pape Ndoye ci la bokk ñooñu ñëpp ci lañ bokk te loolu nag il faut que yéen taskatu xibaar yi ngeen wane ne que loolu Fass la Lam amul feneen écrit boo fi dégg benn mbër ngay dégg écrit Fass moo am fukki mbër yu ñu mën a lim ñëpp xam leen xale bi ngeen di bëreel nenañ daanoogul ci làmba ki muy bëreel tam daanoogul combat bi nu leen ci gën a arrangé ñaar yëpp yëpp benn la rek rek dafay bëre simple ñu yaakaar ne dafa dàq bëre Maodo bu samdee la ñu xam ne dàq ko bëre dàq ko xeex. kon kuy daan. yàlla ñu yàlla may ndam yàlla na Pa Maodo daan ñun ay jullit lañu du ñu jiitu yàlla yàlla na Maodo daan bu samdee incha allahu taala jërëjëf. di ngeen ko xamee nag dañu demoon ci open presse bi mais jaxaso bi dafa bëri ba image yi mënta leer ci Lamine ak Talla Ndiaye comme ñun nag 100 pour cent lamb la duñ bàyyi moo tax ñu topp Gris 2 ba fekk ko ci roq fas yéene nag gën leen a jox image yu gën a leer parce que internet yi loolu lañ soxla. waaw maa ngi leen di fay waa Leewtoo ak waa Lutte TV waaw di leen nuyu bu baax di leen masawu coono tey di masawu coono journaliste yëpp. waaw di masawu coono tamit waa Médina bu baax a baax Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar Rebeuss nga xamante ne saa yi ñu jugee rek ñoom ñëpp ñu jug waaw di leen remercier bu waaw fii sunu ay kilifa sunu ay sœur sunu ay mag délégation bu Cheikh Ahmed Tidiane Ba TAB CAT CATB waaw ñoom tey nga fekk sunu sœur jiite ko bi Dieng am nañ te ne moom turandoom mi ngi suñu biir kër waaw nga xamante ne c'est la famille daal doom ci alaaji Ameth Dieng rahmatullahi alayhi su grand yi ñoom Pape Malick Baba Diagne nga xamante ne saa ñu amee bis yu mel nii rek ñoom ñu ngi ci biigee mu ngi nii ce que duñ dem ci biigee di nuyu nañ dégg nga ñi nga xam ne ñoom la fi Cheikh Ba yebal comme niñ ko waxee lool loo ciy wax balaa ñuy ñëw si combat bi waaw Cheikh Ba moom comme ni li ñëpp wax rek mooy dëgg quoi ndax euh, nit la koo xamante ne événement bu ñu mës a am rek accompagner nañu si waaw mais événement bi moom c'est spécial parce que dafa nekk combat boo xamante ne combat derby la ñu soxla ko trop ñu soxla trop taxawaayam kon ni mu daan taxawee waaw parce que ñun moom seetlu nañ suñu ay combat yu bëri dañuy dem ba buntu esat ay doomu Médina nekk si bit nekk si mbedd mi di dab oto oto bi ñu war a dugg ñun pour dugg stade booy Médina yi wër ñu naan ñu amuñu ay billets ba dañuy woo promoteur bi naan ko suñu reliquat jox ma si nangam billet wala déet te loolu warul mën a am te suñu kilifa bi ku ci dox ay jógo la koo xamante ne ba mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla sentir nañu jàppaleem si ñun ak sunu ay grand loolu nag ñu kontaan defee délégation bi même avant mu koy def sax mosuñu am benn bis buñ taxawal rek te moom dugg ci ak lu mu mënti doon. am na solo léegi dañuy ñëw si combat bi parce que dañu gis combat boo xam ne nii combat bi dañ ne yéen ñaar ñëpp combat bu métti la ci yéen parce que mosu ngeen a daanu te ay xale ngeen nekk si buntu yéeg si làmba. waaw loolu la ñëpp wax. te li ñëpp wax. loolu da nga ko da compte rek. da ci bàyyi xel parce que loolu du tey rek lañ ma ko mos a wax ci làmb man ak Ablaye man doon naa fi bëri ay combat yoo xamante ne même chose lañ ma doon wax te dañoo ñëw gañe ko avec la manière loolu tam bii tamit yàlla na ko yàlla defee noonu. rëg-rëg ci maanaam buñ ko gisee gis la mu mel ni ki yéen ñaar tamit ay xale yu ñemente ngeen parce que moom na combat bi du yàgg yow tamit nga ne combat bi nu mu mel baax na. noo xam nga moom dafa changer communication am ndax au ba combat bi di door a taxaw dafa wax ne dama koy cons nee na day yàggal combat bi loolu la doon wax. da yaakaar daa jóg ci loolu ba combat bi jege si mu ne day gaaw loolu ñaari wax la léegi man tamit fi mu waxoon man foofu laa koy fekk si. mooy combat bi tempo tempo la incha allah. dama ne la tempo tempo la. bu ànd ak avancé fu mu nekk incha allah dinañ ko fa fekk daan ko indi fi ndam li incha allah. diggante géejawaay non Pikine di moins wala boog Caaroy ak fas parce que yaakaar naa ci mag ñi ba fii yéen a ngi bëre de te am na lu mu ci wax moom. a ah, dégg naa ko muy wax ay waxu kaaw xam nga nit moom dangay am yar sunu papa yi nga xamante ne ñoo ñu jiitu woon muy sunu papa pap kan bi mu ne waajur la ci moom rahmatullahi alayhi yàlla def na mu nelaw yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam xam nga yooyu soxlawul ci si jamono boobu ñu si ñu siy jaaraat caaroy faas bu siy joxe ay exemple ñun ku si nekk rek mën nga mën nga si ñun ñu fi nekk yëpp fekkee nañu Gris Bordeaux Khadim Ndiaye numéro deux Gris Bordeaux da yenu ba ci kaw dóor si suuf Khadim Ndiaye numéro un Tapha Gueye ñun ñëpp fekk nañu fi Tapha Gueye da koo ñàdd Gris Bordeaux bàyyi ma njoon barki Dembo Ndiaye ko dóor bàyyi ci géew bi kon bu ñuy wax du bu ñu fàttali lu yàgg moom na wax rek li mu fekkee te li mu fekkeewul mu joxe respect. nga yaakaar ne yooyu nga fi lim yëpp mu am ci yéen di ay ndam est-ce que loolu du mettil combat bi di ma samedi ci yow. non man dama wóorul lu yomb man làmb li fa am en tout cas li ma la wax mooy làmb ja incha allah la lay metti ak lay neex loolu man maa ko fay indi. lay metti lay metti ak la fay neex combat bi. incha allahu bi man maa ko fay def. la fay métti ak la fay neex yaa ko fay def su la déggee ça veut dire yaay fecc lu neex bëri lu neex daan ñibbi loolu nga bëgg a wax wala. fecc bi moom wax naa la ma ko. moom dinaa ci jéngu rek. mais dama ne la biir bi moom. poobar bi man maa ko fay suy. boo fa suyee poobar poobar moom. waaw garaawul na saf rek. en tout cas daal na saf. waaw géew bi daal moom dina wuuteeg ci moom ci baneen géew. naa ko wan ne foofu géew la ko quoi làmb la kàmba gi foofu incha allah. Mhm. la ba Reug Reug am na loo koy moytoo. non samay kilifa nee nañ non waaw ndax ñun consigne la bëre te ñun ay xale lañ ñun tàmm wax mooy si. waaw ndax ñun yàlla lañ jiital si sunuy mbir yëpp lépp lu ñu teg rek dañ koy nangu. waaw te incha allah ndam lañ ko ñaan te allah dinañ ko am. ma gis giri toog ci sa droite gis naa tey tamit écurie Fass yëpp dafa mel ni génn nañ. lan nga seq ak ñoom ci koo ci ñoo xam ne dañ ne seen rakk nga ban taxawaay nga taxaw ba ñoom ñëpp nga mën leen a génne. waaw amoon ñëpp jàmm ndax man nee naa la xam nga nit moom ñetti génération groupement boo gis sportif ñetti génération la mooy mag ñi ak say moroom ak saay rakk mag ñi ñooñu ay kilifa lañ ñi nga wax ne ñoo génn ñooñu duñ suñu ay xarit ñooñu suñu ay mag lañu ñu def suñu devoir ci ñoom. nekk seen sécurité nekk seen suqu topp leen nangul leen kon tey bu ñu amee bis c'est normal sumay morom ñëpp sumay xarit lañ mais mention spéciale nag à Lac hmm. kooku c'est mon jumeau waaw waaw loolu yàlla moo ko def rek loolu nañ ci def point hmm. xam nga ak ñëpp nag tout le monde Tapha Junior ñëpp mbër yëpp ci écurie bi hmm. bu ñu gisee tamit euh, nit ñëpp génn ay mag ak ay kilifa génn mu mel ni ki ci li ñuy for faral di for ci wewu béy Gris 2 moo bëgg a téye Fala Flambeau loolu da nga koy confirmer wala. non loolu du ma ko confirmer Flambeau ñun ñëpp koy téyandoo li ma war a defi samedi incha allah am na ay dizaine dizaine yu nekk Fass yu ko mën waaw man maa war a dem man maay dem def ko mais ñi fa nekk ñëpp ñun ñu nekkoon regroupement gëm naa ne koo ci yabaloon samedi bu demee stade day daan rek rek loolu la ñu gëm ñun ñu nekkoon pendant trois mois di liggéey. gëm naa fa keneen ku ma fa yabaloon it même chose day dem am ndam. am ndam waaw parce que dañ ko liggéey. arène nationale dimanche passé Aigri Fass bëri na fa daan. Mhm. lundi tamit defe naa bëri ngeen fi ñaari combat Iba Mar daan. loolu yëg nga ko. waaw ba ñu yëg. xam nga waxoon naa leen ko premier avant boobu am na yeneen ndam yu si topp dañoo sonal Fass rek si Fass crise dañoo bëgg a teg crise force. mais ñun nekkuñu ci benn crise. est-ce que ndam loolu ngeen fa amee bii passé dimanche passé ci arène nationale ba est-ce que wala. waaw ah, man chaque année moom Fass moom man chaque année fee laa leen tàmm indil te yàlla mi yàlla loolu xam naa ne incha allah dina ko defaat mais Fass moom li ma leen tàmm indil rek incha allahu rabbi loolu laa jàpp ne samedi mooy amaat incha allah. looy mujj a wax askanu Sénégal waaj ak sa adversaire ak supporters yi war ñëw ci bisu làmb ja samedi arène nationale. waaw di leen wax rek sport moom paix discipline maîtrise la waaw mooy jàmm ndax ñun ñëpp ay sénégalais la esprit fair play ñëw ñu foo comme man moom fii Medina aw ma problème boobu ndax ni seen ay mbër mel rek noonu lañ mel waaw ku leen yëngalul duñ yëngu dina ñëw nag en masse incha allah supporter seen doom ñëw di wax nag suma mbokk séeréer yëpp fu waay nekk gis naa taxawaay bi mais niñ ko yokk suma ay mbokk taalibe gis naa taxawaay bi bu baax a baax a baax waa Saint-Louis di nuyu waa Touba waa Tivaouane xadaratu Malick yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa taxawaay bi bu baax den leen wax ne fi jàpp foofu la ba jour ji incha allah ñu dem di wax nag autorité yi Médina yi rawatina nag mention spéciale Cheikh Tidiane Ba di ko wax ne ko supporters yi teg naa ko ci seen loxo supporters yi teg naa ko ci seen loxo bugguma dem buntu esat benn supporter di ma koj benn supporter di ma koj di nuyu Demba Ka Reka Oyel am na benn taxawaay bu mu ci def bu baax gis naa bu baax taxawaayam autorité yoof yi tamit autorité yoof yi gis naa seen taxawaay maire ba déplacé wu na ñëw ba sama kër te gis nga fii lañ dëkk Médina dem nañ foofu yoof maire ba keroog ba mu jugee stade sama kër laa ku fekk deux heures du matin kon ñun fépp ñu nekk ci àdduna dañuy respecté ndax ñun lu ñuy dund mooy respect lañ jox ñëpp waaw képp ku indi benn ñaga suñu diggante rek yow yaa ko bëgg tànte mais ñun ñëpp lañ tàllal loxo waaw ñu ngi sant nag di gërëm di nuyu suma famille sama mbokku séeréer yëpp rawatina waa Joal Baasul waa Diofior gis naa bu baax a baax a baax taxawaay ñu taxaw. waa bokk ngeen ay ndab dëkk yi ngay tudd noonu. no bu bu dimanche jotee bu samedi jotee incha allah di ngeen gis séeréer pire incha allah. pire séeréer waaw kontaan si yow. jaajëf. suma xarit Babacar maa lay maa lay fay. <laughs> tey gis nañ délégation Cheikh Ba délégation monsieur Bamba Fall ñu ñëw pour soutenir Sarak Cri 2 loolu loo ci dolli yow. non loolu am loolu plaisir la et c'est pas la première fois parce que ñii fi toog ñi taxaw fii. ay mag ñi suñu ay pap xam nga kanam goo fi jàkkaarloo rek xam nga nga xam ni mbir mi boolewu leen du politique du làmb c'est la famille te nag ki leen yabal mat ndaw ah Medina bëri na ay autorité yoo xam ne bon bokkuñu ay parti yu bokk mais Cheikh moom il est exceptionnel ah ci li muy def parce que tout récemment rek maa ngi dégg ci koor gi geste moom peut-être li muy def ci suuf sax moo ëpp li muy def ci kaw tamit ñun bokk nañ doomu Médina yi koy tiitaroo ci duñ na mbër rek parce que Cheikh li muy def mbër ci gën a tuuti mbër naa ñaari mbër la am ak ñett sax jën euh, kayre giri un ak mais suñuy man sama événement muy giri deux ak ñeneen ak ñeneen lim ci dëkk ci ay coono amul benn autorité ay Serigne Niang Serigne Ndiaye 2. xam nga Medina bari na mbër de am na sax ay mbër yu ma xamul. mais koo ci gis rek maanaam maanaam ñi nga xam ne maanaam tey ma mas nun gi rek maanaam Medina bépp doomu Medina boo xam ne yaa ngi yëngatu ci làmb waaw yaa ngi dégg waaw gis nga ba léegi. Forza du Medina la bokk wala. Medina la bokk dem moo tax mën a bàyyi ma mas nun gi ne bépp mbëru Medina. Cheikh Ba dana def jëflante ak yow loo xam ne amul benn autorité bu koy jëflante ak yow ci ay gestes yu noble yoo xam ne tout récemment ci koor gi parce que ñun jumaa ji nga xam ne jumaa néegu yàlla la loo fa def rek laal ñëpp te man jumaa ji képp ku ci lu fi def man nga ko defal parce que sama baay fi nekkoon imam ñuy juddoo fi yaroo fi màggee fi lépp lu ñaam am Medina lañ koy santé moom la ñuy tiitaroo te moom gàcce ngaalaama dañuy ñaanal dañ koy ñaanal Cheikh Ba ñaan boo xam ne suñu xol lañ ko tibbee moo xam li mu bëgg ci politique parce que bu avancé rek maintenant avancé de ñun fi mu nekk nii muy fi mu nekk fi mu nekk moo tax tey mu mën a jàppale bépp doomu Medina dañuy ñaan yàlla nag dañuy ñaan yàlla yàlla kattanal ko may ko doole ba nga xam ni ba nga xam ne tey li muy mébét ci Medina parce que am na yéene parce que nag cin bu naree neex bu baxee xëy mi ngi def mu ngi dimbali néew di doole mi ngi def ngir yàlla parce que nag turandoom la doolu Cheikh Ahmed Tidiane loolu nag ñu koy ñu koy ñaanal yàlla di ko encourager yàlla